dafa tooy amul fit il n'ose pas entreprendre ñu foog ne c'est de la politesse il ne s'assume pas justement daf ñuy dugal ci cadre euh, confusion de rôle bi ñenn ñi di wax mhm. ne moom bon nii la rek président prête non président voilà de no juste mais en réalité il dirige pas est-ce que boobu gis-gis nga am mais il n'est pas si si c'est le cas mais il n'est pas fautif c'est Macky qui est responsable de tout ça ah, ah oui ah oui on ne peut pas accuser Diomaye comme ça bàyyi Macky Macky a contribuer à ces élections-là Macky il a traité Sonko et Diomaye de tous les noms il a dit que c'est eux qui mettent le pays en ruine oui. c'est eux qui mettent le feu que les terroristes sont là que les rebelles de la Casamance sont là que ce pays est en danger mais bi muy def ce discours-là mais dama ko gëmoon man yow gëmoon nga li Macky ah parce que on avait mis le feu euh, à la bibliothèque universitaire mm -hmm. on avait jeté le dans un cas de transport en commun mu am ñaari xale yu calciné bon le le pays était était en feu et en flamme et les gens se posaient des questions ñii est-ce que ay politiciens kese la Macky ne non c'est pas des politiciens kese mm-hmm. mais ces gens la dama leen di barrer la route il les a arrêtés moo leen ku leen jàpp moo jàpp yóbbu leen prison il a arrêté mille personnes bon ñi gëmoon ne Macky a raison ils ont dit ok c'est bien fait parce que dëkk bi jar na ko stabilité Sénégal jar ko. Mhm. man aussi bon je disais quelque part il a raison mais c'est lui qui un beau jour en pleine campagne électorale mu génn ces pyromanes la à dix ah moo leen wax waaw moo leen waxoon ne ay pyromanes lañu ñooy taal dëkk bi mu génn leen jàppale leen ñu fal si on di que euh, euh, Diomaye. Euh, il travaille pour Sonko mais Diomaye a toujours travaillé pour Sonko. il l'a dit d'ailleurs. ah oui ko mais bon tey bu ñu yegsee ba ñu fal Diomaye Diomaye moo war a jiite. mais moo war a jiite mais attends. Euh, euh, est-ce que euh, gis nga ne mu ngi jiite. Fathia yaay moo war a jiitu doom mais ki nga xamante ne mooy jiital su ñëwee jël doom teg ko ci kanamu yaay mais terewul ne doom bi ba tey mooy doom. Hmm, doom la change rien. mais qu'est-ce que ça change. c'est c'est dans le parti c'est Sonko qui est le patron de Diomaye. Oui. C'est toujours politiquement Sonko est le patron son, de Diomaye. Oui. loolu su fekkente ne ça se vérifie mais Macky Sall moo ñu ko teg parce que su bàyyi woon jeu bi dem normalement mais Sonko mooy nekk président. ok voilà. d'accord et su Sonko nekkoon directement président bon Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko bon y aurait pas de changement. mais au moins dinañu xam ne ki bëggoon nekk président moo nekk président. mais c'est Macky dans le micmac qu'il a fait xaw ma aussi je ne comprends pas les enjeux les tenants et les aboutissants mais je dis que ces élections présidentielles là am na ay secret yu fa nekk ba tey xamaguñ ko dañu ko war a clarifier qu'est-ce qui s'est passé ce contrat de Cap Manuel dont on parle c'est quoi ce contrat protocole euh, voilà euh, ce, euh, cette entente entre Diomaye Sonko et Macky qu'est-ce qui s'est passé xamuñu Amadou Ba il fait sa déclaration sa sortie il ne cite pas Macky Sall veut dire que am na lu xew et il s'est dédouané ci lu bëri nee dañ ma accuser mais amul on dit quelque part aussi que Karim Wade bokk na ci deal boobu et cetera mais si les hommes politiques font leur complot sur le dos des Sénégalais changer carte yi ba carte yi jaxasoo te ñu ñëw naan ñu voilà Diomaye mooy kon mooy kii et cetera et tout kan moo ko def. su fekkonte ne Macky accusation boobu defu ko woon. traité wu leen de pyromane waxul na ñoom la tëju leen mais c'est Sonko qui serait ñu dem compétition Sonko nekk candidat keneen nekk candidat ñu voté mais par le cours de l'histoire et des grimaces historiques du fait des acteurs politiques moo indi Diomaye. Mm-hmm. le pauvre il s'est retrouvé président de la République comme ça. il n'était pas xamul lu xew. il s'est de la République. non attends Diomaye xamul lu xew. ba léegi. bon les gens disent que bon c'est un miracle quelque part c'est un miracle parce que moom il travaille pour Sonko. ku ko waxoon ne yow yaay nekk président du ko gëm. Mhm. mais il travaille pour Sonko il se retrouve mais nit ñi dañuy def seen i mag ba mu am résultat ñu jiiñ ko yàlla lu xew ci àdduna bi yàlla la. Mhm. mais lii da koy jaarale ci nit ñi lii mu jaarale ko ci rab yi lii mu jaarale ko ci jinne yi mais lii c'est le micmac et le complot des acteurs politiques. moo dugal Sénégal ci guuta bu mel nii j'ai rencontré un acteur du du kii voilà euh, de l'APR mu naan ma lii ma ne ko attends Macky Sall avant mu ñëw fi naan daf fi nekk quoi que ce soit il a des comptes à nous rendre. ah oui su buggee jógee fële ñëw ne maa nekk candidat pour me battre contre Diomaye attends est-ce que c'est pas lui qui a fait ce micmac là ba lii am je ne sais pas mais je di que euh, ñi nga xamante ni histoire mooy seen domaine war nañu clarifier lii et que les acteurs politiques war nañu comprendre. respecter les Sénégalais. Sonko aussi. ils nous doivent tous beaucoup d'explications. parce que ni Karim Wade Macky Macky surtout hein, il nous doit lui beaucoup d'explications. parce que ni Karim génnee hmm? prison Macky. Macky yoreel nañu ay bor yu bëri. ah oui kaawu Karim yoreel nañu ci ay bor mais. c'est des explications aussi, oui. mais moom ak Sonko aussi. oui parce que Sonko aussi il a joué le jeu. Hmm. il a accepté le jeu. moo tax ma ne la euh, moom victoire bi arrangé wu Sonko waaw xam fa la commencé. mu mu perte bu pertoon élection yi moo gënoon mu pertoon yi moo gën. Euh, moo tax bi abbé bi di werante ak moom abbé bi ne ko ñun suñu yonent il ne fuit pas devant les responsabilités gars yi ne abbé bi Mohamed lay wax waxul Mohamed man li ma dégg il s'adresse à Sonko tu as fui devant tes responsabilités da waroon affronter loolu nekk sa kanam mu jaral la nga renoncer aux élections mais bëgg pouvoir du jar nga jouer ce jeu là et maintenant Diomaye se retrouve président yow tu es son tu es son patron tu es le PM et maintenant tu lui fais jouer des rôles qui ne sont pas catholiques et da koy doubler sax ci ay domaines. kon yow li Diomaye def tas assemblée par exemple loxo Sonko nga ci gis. mais attends Sonko il gouverne. Un, un, un chef de gouvernement il doit gouverner. Ah, non non pas il ne gouverne pas en tant que PM. il gouverne véritablement. En tant que président. Je ne sais pas, il ne s'appelle pas président. Mais il, il, de fait. Président Mais attends, patron ou président Attends, Fatiam, il faut oui. comprendre. Hein? Oui, non, non, C'est-à-dire, président doit patron. C'est le patron, lui. le président qui est le patron des patrons. Mhm. Mais dans le cas du Sénégal, où nous sommes actuellement, le président a un patron de fait qui est son co. Ce n'est pas de sa faute. noo noo gisee justement le fait que Sonko di ko jiitu di annoncé yenn yu mu nar a def. mais mais parce que. est-ce que c'est pas aussi pour taxaw taxawaay fusil pour la protéger pour encaisser les coups. mais protégé ko avant qu'il ne protéger ko mooy nga ko. Hmm. suturaal ko nii euh, ko mooy nga aar ko xam ne il est vulnérable en tant que président bu am patron il est vulnérable nit ñaa ngi xaar. Hmm. ci ay ndëgg sërëx nit ñaa ngi koy saxaar ci ay humiliation sax eh. commencé nañ oui parce que le patron mën na ko humilier et yow yaa ko war a aar am na plusieurs façons nga aar ko mënoon nga comme que moom moo ko choisir bàyyi ko mu dem affaire yi am na tu te nga xam ne lu def dara te waxutaanul ak yow. kon Sonko waroo nekk premier ministre. waxuma waru ko nekkee si le choisit il peut l'être mais man su ma nekkoon place am. damay bàyyi espace bi vide. ma dem gérer politique gérer parti tu laisses Diomaye gérer mais nga koy conseiller dans l'ombre du def da lay laaj tu auras son téléphone rouge mhm. tu l'appelles quand tu veux tu lui conseil et cetera mais soo ñëwee nekk patron nga siéger dans conseil des ministres am na ay photo des fois yu la nit ñi di génne la mm. Diomaye toog ko toog wala ñuy wax ni Diomaye Sonko génn téléphone am sur le plateau présidentiel hmm? wala cérémonie am ñu ne président su duggee dañuy tëj bunt bi yow nga bujjee ñëw ñu ubbi bunt bi avion présidentiel c'est réservé au président nga jël ko utiliser ko comme tu veux c'est une première au Sénégal tout ça c'est des choses nga wax mu wax waxam dëñ sa wax taxaw et moom moo koy dindi moom Diomaye et il a dit je lui donne l'autorisation pas de lorgner mais de regarder mon fauteuil et je vais tout faire pour l'élire Bon, quand le président travaille pour élire un autre à sa place, mmh. mais la nation et, et la en danger. mais loolu yëpp nag kan moo ñu ci dugal mais Macky génnu ci Sonko génnu ci maintenant loolu war nañu éclairer Sénégalais yi moi personnellement je ne comprends pas honnêtement et je dis que ñu ngi ci guddi bu bëccëgagul kañ lay bëccëg hmm. yàlla rek a xam mais yàlla defal ñu sutura inspirer leen ñoom ñëpp ba ñu mën a redresser la barre pour que la barque Sénégal daw ci yoon bu mu war a jaar hmm. teer fu mu war teer sinon Euh, euh, le jeu politique bi amoon entre Senghor et Mamadou Dia gis na lu mu jural. ils se sont affrontés. Mhm. waxoon naa ko fii ci émission boobu. ma ne la ñaari kuy. du ñu bokk mbalka bon bii nag Diomaye nangu na ne Sonko mooy patron bi. c'est la première faute fidélité la. Mhm. mais c'est une fidélité qui ne se justifie pas. il est fidèle c'est de la bonté que malgré que may président bi bon je resterai toujours humble auprès de Sonko parce que si barkeem lañ ma falee patati patata et cetera mais maintenant tu es président quand tu deviens le président mais tu conquiers ta liberté hmm. ah oui tu es le président il et doit, institution boobu il, doit s'affranchir parce que soo ko soo ko à l'agneau à la fidélité tu tu divises tu tortures Euh, détruit l'institution et institution boobu ngay détruire même ëllëg su dee Sonko nga ko jox il va hériter d'une institution détruite loolu moo tax ñu ne kilifa euh, su su su juumee mhm. bu ko bul détruire institution bi okay. parce que soo toroxalee benn kilifa toroxal nga kilifa yëpp soo sargalee benn kilifa sargal kilifa yëpp moo tax institution dañ koy aar dañ koy solol mbuba et aujourd'hui l'institution est incarnée par Diomaye maintenant c'est le c'est un couple Diomaye mooy Sonko mm-hmm. Sonko mooy Diomaye dugal nañ ko ci bopp nit ñi mais Diomaye maintenant tu dis que ok Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye bon mais Diomaye mooy président mm-hmm. Sonko mooy premier ministre bon la logique lan la lay wax président mooy premier ministre. premier ministre mooy président. si on poursuit la logique. et maintenant nous sommes dans la cacophonie même Sonko sax day day faqastalu. Hmm. léeg-léeg du xam est-ce que président la wala PM la wala patron Pastef la wala kan il fait des confusions day def discours ci benn discours bi léeg-léeg c'est le président de Pastef qui parle des fois c'est le PM qui parle et de fois c'est le président qui parle. quand le PM est en voyage on nous sort un communiqué alors que décret n'est pas encore sorti dàq ay nit ñi ñu dàq ne la gisaguñu décret et le PM e sort un communiqué ça pose problème il a chamboulement confusion. Hmm. yàlla nañ ci yàlla génn. amiin alors ñu ngi woon ci.